komisiyon man bi aju ci kuréel gi cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke taxawal ngir saytu lépp lu jëm ci mbokki jullit ak mbokki taalibe yi loru ci wàllu mbënd mi ci dëkk bu sell bi di Touba ñu ngi amal liggéey bu am solo ànd ko ak mboolem commission yi nga xam ne nii ñoo seq kuréel gile ci jéego yu am solo yooyu nga xam ne ni ñu ngi koy wéy di amal ngir taxaw mbokki taalibe yooyu tax na nag ñu amoon tukkee nemmeeku ci yenn ci kër yi nga xam ne nii yenn ci mbokki taalibe yi abal nañ ko ñi nga xam ne nii seeni kër ndox mi nangu na ko commission sociale di wéyal ab liggéeyam waaye di soññe ak a tegtal mboolem jullit yi nga xam ne nii naka jekk dañuy wéy di jàpp ci liggéey bu am solo bi fi nga xam ne ni foofu la ñuy jaar fii ci résidence Khadim Rasoul mbooleem commission yi nga xam ne ni ñoo seq kuréel gi ñu ngi wéyal seen ab liggéey ci noonu mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi wéyal ñoom itam di indi seen i dimbal kuréel gi ngir ñu mën koo saytu jox ko ñi nga xam ne ni ñoo ko yelloo mooy ñi loru ci wàllu mbënd mi. am na yenn ci kuréel yi yoo xam ne ni ñëw nañ fii ci résidence joxe seen dimbal ñeneen ñi jaarale ko ci compte banquer yi wala sax ci plateforme yi nga xam ne nii. mën nañ ko faa jaarale. maa ngi tudd Mori Touré euh, jiite kuréel gii di ànd defar donc tey dañoo ñëwoon doon masawu sunu mbokk yi nga xam ne dañoo loru ci inondation yi euh, di jaajëfal bu baax kuréel yi nga xam ne moom la sëriñ Mountakha teg ngir ñu saytu liggéey boobu si kaw loolu nag sëriñ ñëwoon doon sof sunu liggéey ci ndigal li nga xam ne moom la sëriñ Mountakha joxe ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak weer jërëjëf xanaa jottali rek ak cant cant koo xam ne moom cantuk Cheikh moom la Mountakha la ndax ñun ñëpp moom la ñu comité bi taxawit muy sëñ Abibu bi nga xamante ne moo yor présidence bi jiite Touba ca kanam ak monsieur le maire Abdoul Ahad Ka ak nun dongo yi nga xam ne tamit euh, ñoo ànd liggéey bi euh, dafa mel ni genn cant gi gu sëñ bi day yóbbaale cant murit yëpp waa ñu ngi leen ci jotali ak cant lii rek moo am solo tey de soññ ñeneen ñi nga xam ne euh, xëñ na am nañ ko waaye xamee wuñu ko nii ngeen ko xamee wala nii mu jàmpee ci yéen ba ngeen gaaw ñëw ànd ak réactivité maanaam jàmpal seen jëf loolu mën naa soñ ñu bare loolu moom ñu ngi ñaan seen i kem bare ndax bis bi dafa mel ne liggéey bi soxla na ko jërë ngeen jëf yàlla ngeen ci dajeek rek ñun ñëpp ñu daje ci ak ngërëmal seen Tuubaa dañu doon jottali rek benn addiye joo xam ne nii kii ci bokk te am ci yéene moo ko joxe muy am Amsatou Mbacke moom Serigne Abdou Lahad Serigne Youssou Serigne Mamor am Amsatou Mbacke moo jox Fallou Gala Sile mii téeméeri junni mu ñëw mu ne naa ko teg ci sama loxo ma teg ko ci seen loxo yéen comité bi mu def ko addee sëñ Tuubaa nee na li li ci am solo rek mooy sëñ Muntaxa lépp lum ne waxuma sax liggéeyab sëñ Tuubaa bi mu sumb ñu di ko di ci ñu te santaane ko te ne ci te woote ci waaye sëriñ Muntaxa lum ne ku nekk war na ko caa fekk ndax moom kat lu nit nekk fekk na la ci nee na loolu moo tax mu di ko jox addi bi di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal lii leen sëriñ bi dénk te boole ñu ko dénk yàlla nañ ci yàlla may ngërëmal sëñ Tuubaa. xanaa sant rek ak soññuwaat rek soññu ndax xam nga lii nga xam ne mooy woote bii Cheikh mun Mountakha woote bokki boppam yi kenn desul nun taalibe it nañu xam suñ bopp mooy li ñuy wax ne dara jërta xëccoo ci àdduna loolu aw yiw lu baax moom kenn ku ci ne da nga war a war a góor góorlu ba bokk ci ñu nekk ci kanam mooy yu saarix na fil xayraat euh, loolu kon si am sa soñ soññ nga ñu man maa ngi euh, soññaat sama bopp di soññ mbokki taalibe yëpp ñu xam ne Cheikh Mamadou Mountakha mii mu wax ne lépp lu bu yëkkati ñëpp war nañ ko caa wuyu loolu moom day beneen dars boo xam ne bokkut ak li ñuy wax ne sëñ Tuubaa moom lépp lu bu santaane warta fanaan des caa war a jublu def ca sunu lépp ndax euh, daan na wax moom sëñ Muntaxa ne lu mat a fàggu sëñ Tuubaa fàggu na ko te boromam defal na ko lu mat a ñaan sëñ Tuubaa ñaan na ko te jubóo na ceeg boromam kon te fàggul nañu lépp tey ëllëg kon kooku ndigalam moom dafa mel ni moo war a doon suñu priorité moo war a doon suñu yitte di sant sëñ Amsatu di ñaan mu yàgg ko ànd ak euh, magam ju tedd ji di lu Mamadou Muntaxa te ñu yàgg ñu yàgg topp ci seen ginnaaw te lu ñu digal ñu def ko tey ak ëllëg ngeen jëf mu nekk ab liggéey boo xam ne nii niñ leen ko waxee ci njàlbeen ak kuréel la bu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké taxawal lëkkale ci commune bu Touba Hizbut ya ak tubaa ca kanam seen yitte ak seen i jëf du leen lu dut taxawu mbooleem mbokki jullit ak taalibe yi nga xam ne nii loru nañ ci mbënd mi ci dëkk bu tedd bi di Touba.